di fi jëmmam yoral ko kàddu gi ndax sëriñ Muntaxa dafa wax ne la mu waxoon daaw loolu rekk mooy li ci moom ren bu sañoon jëmmam mooy ñëw ànd ak yéen jataay bi fii waaye léppam a ngi fi xolam a ngi fi xelam a ngi fi ak ñaanam a ngi fi mu ne kon ci loolu bu Cheikh Mamadou Bassir ñëwee fekk fi bokk mi baax yii ñoom ñëpp ñu bokk teewal ko fi kon mel na ne mi ngi fi kon nag ñun ñëpp dañuy bokk déglu Cheikh Mamadou Bachir mu jottali kàddu yooyu Cheikh Mamadou mu tax a bëgg mu jottali ko ko waaye nu bàyyiwaal xel ñun ñëpp itam ci lii Cheikh Abdou Samad wax ne kàddu yi mu waroon wax moom Serigne Abdou samat wax ko ci turu kër suñu soxna bu gépp mu lay ca kilifa ga di Serigne Cheikh ak njabootu kër gi ñëpp ñu wax ko mu war a jëm ci bokk yi fi daje ci wootub sëriñ Amsatu bii lépp di ay cant ak lu baax rek lu rafet rek loolu la bëgg Cheikh Maoul Basir boole ko kàddu yi sëriñ Muntaxa yi lépp mu boole ko jottali ko ndax doy na leen te sëkk. والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين bokki julli ji tedd yi fi teew bokki taalib yi fi teew ci ndigalul Cheikh Mouhamadul Muntaxa mi nga xam ne moo fi jëm yu Sëriñ ci kaw suuf ci turam ak kàddoom dañ leen di jottali li ñuy bëgg a wax di leen jottali kàddu yu sëriñ bi ak i cantam ak ngërëmam ni ko sëriñ Cheikh Mbacke Abdou Latif waxee léegi sëriñ bi yónni ñu ma ak ñoom wax ne na ñëw teewal ko ci bis bii nga xam ne ñépp xam nañ ci yéeneem xam ne ñëpp xam nañ ci yéeneem ngir moo daan ñëwal boppam di ko fekkeel boppam moo daan ñëwal boppam di ko teewal boppam ndax diggam ak njëbooru sëriñ sooy ak diggam ak xasida yi kon lii sëriñ Abdou Samad wax léegi mu ngi tàbbiwaale ci biir kon ci turu Cheikh Mouhamadou Mountakha ndax kàddu yëpp dafa tàbbi ci biir kàddoom loolu war a sëriñ Abdou Samad wax ne kàddu yi mu waroon a yëkkati ci ndigalolu sëriñ Cheikh mi nga xam ne moo fi jëmm sëriñ Souhaïbou te di kilifa kër gi di kilifa jataay bi li mu waroon jot li ci turam jot ko ci turu Cheikh Abdoul Ahad ak Cheikh Mouhamadou Fadil waaye jotali ko ci ki nga xam ne moo tax ñëpp daje fi muy Serigne Hamsatu Mbàkke mu Serigne Soyibu kon ñi ngi nuyu bokk yi fi teew yëpp di njabootu Serigne Touba waaye buñ ci tuddee sëriñ Mouhamadou xaban Mbàkke ibnu Cheikh Mouhamadou Fadil tudd ci sëriñ Mamour Mbàkke ibnu Cheikh Mouhamadou Fadil tudd ci sëriñ Moustapha Mbàkke ibnu Cheikh Mouhamadou Lamine Bara mu mën a yóbbaale mboolem jaboot di ndax bokk yëpp fi teew kenn manqué wut kàddu yi nag kàddu yi néew lay doon kàddu yi cant rek lay doon ak yi ngërëm ndax mboolem luñ ci waroon wax ci turu Cheikh Mouhamadou Mountakha ci wàllu soññee ci suñ digg sëriñ bi ak suñ digg ak xaside yi ñi ma jiitoon suñu doom sëriñ Bassirou Mbacké Abdoul Karim wax na ko sëriñ Aliou Diop mi nga xam ne itam moo doon wax ci turu kuréel xaside yi moom it li fi wax ci soññe doy na sëkk sëriñ Cheikh Fall Mbawar moom ndax bépp jataay bu ñu defal sëriñ Touba bu fa jabatu maam Cheikh Ibrahima Fall teewee bu ñu fa yëkkatee kàddu lu war la moom itam li mu ci wax ci wàllu taalib bi ak soññe yóbbaal na lépp kon lu ci waroon ci taw jihaat ak liñ ci waxaat rek mooy sant santal sëriñ bi ndax sant moom suñ boroom ci boppam nga xam ne doylu na wëlis lépp loolu rek la am ci jàmm te wax ne al abdu lam yashkur nii maa lam yashkur man ajratu nicmata ala yadihi cant nag ni ko suñ borom séddalee ci alxuraan ñett rek la cant ki nga xam ne da nga koo yëg muy ci sa xol ak sa làmmiñ ak say cër cant gi nga xam ne sa xol la mooy wa ma bikum min ni'matin fa minillah cant gi nga xam ne ci salaam yi lay jóge nag mooy wa amma bi ni'mati rabbika fa xaddis mooy li Sëriñ Tuubaa di wax ci xasida yi ba mooy cant gi nga def ci say cër mooy i'malu ala daawuda shukran waaye nag suñu boroom xam gi mu xam ne sant lu jafe la moo tax mu ne wa qalilun min ibadiya shakur kon nag moom xam na ñi koy sant ak ñi ko sant alaysa llaahu bi alahu bi shakirin kon sëriñ bi mu ngi sant ñëpp mboolem ku fi teew te bis bi yëkkati la nga ñëw dundal si xaside yi ànd kook sëriñ Hamsatu sëriñ bi ngay sant bu baax a baax di sant sëriñ xam Hamsatu moom wax ci ni nga ko ko daa seere laat mu jot ndax liggéey bii kat suñ borom jagleel ko defal ko ci tawféex ndimbalul yàlla la waaye tawféexe Serigne Touba la ndax xaside yi moom mooy liggéeyu Serigne Touba Serigne Touba ci la doon jaay jihaad diggan digganteem ak boromam ci la doon liggéey la rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam moo doon moom la doon déyaalee ak borom kon xaside yi mooy mbootum Serigne mooy lépp Serigne kon nag. ndegam dafa dëddu lépp dëddu àdduna soxlawu dara dëgmal Sëriñ te jaare ko ci xasida yi loolu kon bunt bi mu jaare ñëpp loo ci nekkaleen kon ñu ngi koy ñaanal ci barkeb Sëriñ Tuubaa mi nga xam ne lii muy def lépp sàkk ngërëmam la ci def yàlla na ko ci gën a defal ndimbal defal ko ci tawféex te defal na ko ko ci ba noppi ndax bis yi bari na bis bu na dégg ngeen ko fi waaye bisu xasida nag fekkente ne amoon na it ci moom lañ ko njëkk a gën a miine ba mu tasaaru ba yaatooy àdduna sépp du ko loolu na kon lu ko Serigne Touba dencaloon kon nag yàlla na ko yàgg liggéeyal Serigne Touba ñëpp itam yàgg ko ànd ak moom ndax lii kat ku ko ci fekk ku ne danga xam ne fekk nga ko ci la nga ko war ndax Serigne Touba moo ñaanoon suñu borom ne ko. wa hablanaa zurriyatan tudiimu al amal saaliha yaa qadiim kon loolu ba àdduna tukki du fi jóg ndax fàgguteef Sëriñ Tuubaa la boo xam ne da ko fàggu ci ak njabootam mu nekk ci isram wa jaalaha kalimatan baaxiyatan fi aqdi kon loolu képp ku yàlla defal tawfiix ngay xeeñtu jeexe jooya képp koo xam ne bëgg lu baax kat war ngay ba di ko ñaanal yàlla mi nga xam ne mooy dëgëral mu gën koo dëgëral yàlla mi nga xam ne mooy sàmm mu gën ko sàmm sàmm itam kilifaam yii ndax yoonu murid kat ku ne xam na ni muy doxe ndax moom mii kat li muy yëngu-yëngutu ci gis ñaan li mu def kilifaam yi bu agsee seen kanam kal may yiti may ne day xaasil yi loolu nag Sëriñ Tuubaa moo ko moo ñaale ak yoon wi lu mu lay yëkkati yëkkati rek la lay yëkkati mooy ak taalibe loolu nag moom yàlla defal na ko ci defal na ko ci def xam na ko te mu koy dund loolu nag ñun ñëpp yoon woo lañu war a jaar te di ko sàmm te xam ne kat buñ ko buñ ko sàmmee suñ bopp lañ ko defal buñ ko sàmmut itam suñ bopp lañ ko def waaye Sëriñ Tuubaa moom noppi na ci diggam ak boroom noppi na ci ab liggéey xasayid yi itam liñ ci wax doy na sëkk xasayid yi ñu fi doon jàng léegi ndax moom foo gestu rek bay doo njëkk jot mu doy na sëkk ab seere tuwassilu aqlaami ilallaahi aabidan bilaa xalwatin wallaahu abqa kama xamal kon xasayta xasayta bi moo gën a gaaw ci àggali nit ci borom waxaat waxaati na xasaayid yi faaxat suyuxu tarbiya kon xasayda yi képp koo xam ne taxoo nga ak moom na la wóor na yaa ngi taxoo jeexit Sëriñ Tuubaa képp ku taxoo moom itam yaa ngi jëm ci jeexit Sëriñ Tuubaa te ne woon nit kuy topp ay jeexitam fu mu fekk nga fekk fu mu nekk nga fekk ko sëriñ Abdul Xaadir nit masta ñëw ci moom sonal ko lool di ko laaj turu yàlla ba ko ci lëjëlee ba mu yàgg Cheikh Abdul Xaadir yëkkit génn xasida jox ko ne ko daa doon laaj aw tur mu ne ko mu ne ko jëmba ngi bu doon laaju tur ba jox la jëm la nga doon bëgg am nga ko kon xasaay bi nañ xam ne mboolem li ñaan ci asmaullahi al husna yi lépp sëriñ Tuubaa daxañ na ko ci biir mboolem lu di sàkku ci lu baax te sellal ko xasida yi ci gën kaw kon nag yàlla nañu yàlla dimbale dafa ñu feex te xam ne kat Sëriñ Tuubaa lim ci deeyaaleeg boroom bari na lool te lépp itam la mu waxoon Sëriñ Mbàkke Jaxate njaareem rek da ko waxoon ne ko Mbàkke lii ngay jëf gis ma di koy wax ci sama xasida yi gis na ci man lool ndax amul ci jenn doomi soxna jum neex ci moom muy jàkkaarloo fi nawleem di leen wax lii ma wax sama biir xasida waaye lu ma sëñte ñàkk génn la kon mooy wa amma bi ni'mati rabbika fa xaddis moo tax mu wax ne qultu wa xasdiya tahaddusun bi ma lii qaadahu wala yurini niqama kon li muy wax ci xasida yi ci mbóot loolu nay xam ne lépp noonu la demee ndax moom li ëpp ci xasida yi am na ci yoo xam da ko bind sànniwaat ko ci biir géej gi ci ëpp itam da ko bind def ko ci ay gaal tëj ko diir bu mu fi nekk lépp ci xasida yi kenn gisu ko kon moom li mu ci wax lu ko wér la diggam ak boroom muy lum ñàkk génn lu mënta ñàkk wax waaye xasida yi mboolem luñ ci wax ca dara ji aku màggam asakay asak ja sax waxuñ ko kon nañ ci gën a góor bu baax te di ko sellal te di ci def pëstéef wa ida dégg naa ko ko wax léegi wa ida quri'a alquran fastami'u lahu wa ansitu xaside itam noonu rek dañ ko war def ndax xaside yi ci biir alquran la ko suñ Sëriñ Tuubaa tibbe kon fu ñu koy yëkkatee wala ñoo ko fay jànge ñëpp dañoo war ne tekk di diglu ndax ku baax kat noonu la daa def ci alquran xasaay di itam fu ñu ko mosaan di jànge lépp danaan tekk moom ci boppam mooy jug di leen teralal boppam di yëkkati ay ñam di leen jox ndax dégg ngeen ko ca njariñ bis muy tagg rasulullahi ci xasaay bi lu sëriñ bi jële ci biir xëpp leen bu agsee ñu ne ko jasaakumullahu yàlla na yàlla fay na sëriñ bi di yokk rek saa su delsee nit ñi defar ko ba mu yàgg ñu mujj bàyyi xam ne lu ñu gën a yàgg rek sëriñ bi bàggante bu mett na ci woon ñu mujj yërëm sëriñ bi ci bàggante ñu daal ne ko Mbàkke de lii defar di suñu lool mooy nag li fi bàyyiwul ne de du ma bàyyi ndax baat bi ngeen waxe dangeen na xamul li ne ci jasaakumullahu jaam jaam bu defal yàlla ba yàlla gërëm ko xamul leen de ci suñu borom daane kon xasaay di lu mat jàpp la te fonk ko te xam ne kat Sëriñ ci barab bii fi la gën a jekke ndax maag sëriñ abu Samb mii toog nañ ci kanamu sëriñ Saliou ci kori gi nga xam ne moo la fi sëriñ bi mujj fekk ci waxtu takkusaan ñu toog maag sëriñ bi ñu waxtaan ci mbirum sëriñ Touba lu kii ci ak génte ba ci yàgg sëriñ Saliou laaj lu mu doon ñu nettali ko ba ci yàgg sëriñ bi daal ñu nett nañu sëriñ bi de toog nañ ci njaareem di waxtaan nit ñi ba mu yàgg moo def noonu mu daa def mel na ku fi newatul di deeyaale borom ba mu dellu siwaatee rek mu daan ne xanaa li ma def di jaaxal ne la lool ñëpp ne tekk ne ko am nañ ci jaaxal mu ne suñ borom de moo doon xamal ne képp koo xam ne aju na ci yow dana tàbbi ajjanti di su ko xisaab daayira waaye waaye ana aju gi nag nu muy wére mooy képp koo xam ne bu ñu yëkkati sama xase di nii dana yëngal sa xol tàggal la ak sa sago foo ko fekk rek xamal ne aju wér la waxoon ne itam nag ne foofu laa koy jeexale am na ci xaside yi génn xaside goo xam ne bu ma taqawoon ak nit la may def ci la la muy def la may def ci moom bu taxoo bu taxoo xaside gi xaside gi dana ko def ci moom mooy jaalibatul maraaxib kon nag loolu tawféex la wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu